xaw ma sax nan laa ko que ah dëgg la yàgguñu ci politique mais xaw nañ yàgg ci politique parce que dañ ci juddoo màggoo ci màggee ci mais lii ma gis nii musuma ko gis ci politique. yàgg naa dégg peut-être ay toj ay taal mais bu daan toj bus wala taal bus dañ koy def foo xam ne nit am nekkul ci biir mais ay nit nekk ci ay sénégalais. Hmm. xamoo ndax ci fu ñu bokk parce man lii du dem sax. ba naan tel parti moo ko def wala tel parti non je n'irai je n'irai pas jusque là parce que euh, loolu c'est c'est c'est très grave d'accuser un parti ou bien même un group d'être euh, nu mu tuddati la cause même de cet incendie mais je dirais tout simplement que le prochain président du Sénégal aura du pain sur la planche parce que Sénégal politique bi dem na egg fen foo xamante am na lu ñu woowee déjà dictature de la pensée unique am na aussi lu ñu woowee euh, disons de la haine am na tamit lu ñuy woowee aussi de je dirais même pas de l'adversité mais cest à bañante presque moom moom moo mujjee am parce que ñun foog ñu waxante dëgg ñëpp ay sénégalais nañ Macky Sall c'est un xalifa Khalifa Sall c'est un sénégalais Ousmane Sonko c'est un sénégalais ak ku mënti doon ñëpp ay sénégalais nañ parce que ñii dee amaana mun a nekk suñuy mbokk. ñii dee amaana mun na nekk suñu dëkkandoo donc politique warul mun a tax ba ñu war a mun a egg fii nii gis nga terreur bii nga xam ne wala dictature bii nga xam ni commencé nañ ko teg ci Sénégal dafa dem ba law sax ci dans la presse lu tax ma ne dans la presse man je vais de cette occasion même pour féliciter leen ci euh, reportage bi ngeen def parce que dem nañ ba gis ñenn ñi dem ba di douter ci lii nii ndax am na wala amul ndax nekkul lu ñu créer wala lu ñu créer wul mais c'est très grave parce qu'on parle de Sénégalais qui per perdu la vie ci situation yu mel nii parce que ça c'est un acte boo demoon tey ci ay France wala États-Unis yooyu noonu nañu naan lii c'est du terrorisme mais pourquoi Sénégal lu ñu ko wax waxu terrorisme tey ñenn ñi loolu nu mu ko waxee rek bu ñuy dem ba di douter ci lii donc ce qui fait dëkk bi tollu nañ fenn foo xamante dëgg amatu fi waaw parce que à chaque fois on essaie de trouver des situations ou bien des des des des des des des euh, nu mu tudd des waaye des situations peut-être yoo xamante dina mun a sedd ci euh, ñu def lii. moo tax man lu may mën a wax rek mooy surtout je parle aux jeunes ndaw yi parce que ñun ñoo futur Sénégal. parce que ndaw yi ñun ñoo warul seetaan ba di mën a dugg ci lu mel nii parce que lu mel nii boo xoolee ba xool du ay mag a ko def ay ndaw a ko def te ay ndaw waruñu mën a seetaan bi leen mën a manipuler ba ñu mën a egg ci lii parce que tout ça comme tu l'as dit je le mets sur le dos de la manipulation et la manipulation ne commence pas juste d'un parti ou bien même d'un groupe c'est aussi une manipulation globale ça part de la presse ca par des réseaux sociaux ça parle donc nu mu tuddee des des des quartiers ça parle des des des grandes places et cetera et cetera et un pays ne peut pas se euh, développer dans la manipulation voilà.